sëriñ Touba Seexul Xaddim ginnaaw buñ ko attee ci bëccëgug le 5 septembre ci atum 1895 ñi ngi ko fanaanal nag ci cellule bu nekk ci biir gouvernance bu ndar géej am na fa ay fan ginnaaw bi nag lañ ko yóbbu ci toolu buur wàcc ko fa tool boobu mi ngi ci Roña Nord ci quartier bii nekk ci ndar géej foofu sax lañ ko booleeg lii di gaynde ga def na fa ay fan ba le 18 septembre ci atum 1895 mu doog faa bàyyikoo nag ñëw ndakaaru bi mu egsee ndakaaru bëccëgug keroog sax dafa wooroon ñi ngi ko fanaanal ci prison bi ruq bu xat boo xam ne nii biñ ko fiy dugal dañ ko doon puus ngir mu mën faa dugg keroog seexul xaddim sax wax na ci jasaawu sàkkoor di wax ne foofu ñu ko dugaloon xat na lool metti na lool ci moom ndax kat ay ràbbu ak lii di ay weñ lañ fa defoon ngir bu fa duggee ñu di ko jam ba kooru keroog gi xamul nan la ko doge waajuram wa soxna jaaratullaahi fekk na ko fa di ko ñaax di ko wax ne gën a la góor góorlu ndax kat yaa bëgg lu kenn munta am seexul xaddim sax def na ci ay الأمير والثبوت taarat ila jihaadi bil armaahi nafsi walakin dabba anni almaax moo tax su ngeen demee ci way yi ko seex musaa ka way ma ngay gën a leeral lii ma leen wax di ko wax ne guddi kër a soxna jaara fekk na ko fa di ko ñaax di ko dolli lii di ay daara wax jooju nag la ko soxna jaaratullaahi waxoon muy gën a lu góor góorlu ndax kat yaa bëgg lu kenn munta am seexul xaddim fanaan fa guddig le 18 septembre ci prison boobu bët seddi le 19 nit ñu bari nag ci ndakaaru tàmbalee commentaire jëf ji jëf ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci bëccëgug le 19 septembre boobu ci atum 1895 mu am lébu buñ doon wax Ibra Binta Guèye moo nekkoon jaraafu siddéem fukki pénc ak ñaar la jiite woon ci ndakaaru ginnaaw bu mu déggee wax jooju la dem ci commandant de cercle bu ndakaaru di ko wax ne dama bëgg ki nga xam ne nii moom ngeen fi denc de wala moom ngeen jëlee ndar bi ci guddi indi ko fi ngeen bàyyee ma ko ma yóbbu ko sama kër saa bu ngeen ko soxlaa ngeen laaj ma ko ma jox leen ko ginnaaw bu ko commandant de cercle bi déggee nag ci Ibra Binta Guèye moom itam a ci moom muy gouverneur bi gouverneur laaj na ko na laaj kooku di Ibra Binta Gueye moom mooy kan ci ndakaaru ginnaaw bi nag la ko commandant de cercle bi di ko wax ne moom mooy jaraafu siddéem gouverneur bi wax na commandant bi na woolu kii di Ibra Binta Gueye di ko wax ne mën nañ ko jébbal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim de waaye garanti bu mat sëkk nag la leen di jox mooy heure buñ dee seet ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim te teguñu ko bët moom Ibra Binta Gueye mii la ñuy jël mu remplacer ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim moom moo koy nangu woon naa jël boobu responsabilité ne leen waaw bu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dawee nañ ma jàpp booba nag jébbal nañ ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ngir mu yóbbu ko këram kër ibra binta géy nag moo dend ak kër gi tudd di foncé muy kër seex mudu mustapha mbàkke gi kër gi ko féete soowu te tëli bi dox seen diggante foofu la dëkkoon foofu la seexul xaddiim fanaan guddig la 19 ak guddig la 20 septembre ci atum 1895 ndax léegi jox nañ ko ibra binta géy mu yore ko ibra binta géy moom ginnaaw ko sëriñ tubaa seexul xaddiim lu kiimaane sax la ci def wala lu xoromu ndax dafa jël ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu ko commandant bi di wax ne maanaam bis bu ñu gisatul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim yow lañ jàpp moom nag Ibra Binte Gay bi muy jël ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ngir ñeewantu ak yërëm gum ko yërëm ndax prison boobu ñu ko denc mettiwaay bu metti woon moom moo taxoon itam bëggoon a laaj ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim yóbbu ko këram ginnaaw buñ ko ko joxee ba pare nag tegal ko yooyu garanti nag moom nag demoon na itam ci yenn sëriñ ngir di ñaan ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim te génn lii di këram guddik keroog bi mu indee lii di ñaan gi ba tàmbali ko suul fa nga xam ne nii daal jort na ne bu ko fa suulee Seexul Xaddim moom doona tàggoog sagoom ba du génn kër gi ba keroog tubaab bi di ko soxla Seexul Xaddim woo na ko ba mu ñëw di ko wax ni Ibra Binta li ngay def lépp de xam naa ko jëruta def fa garanti bi ma lay jox nag mooy kër gi moom duma ko génn fii tubaab bi soxla wuuma baneen garanti bi ma lay tegal nag mooy su may dem ci tukki bi yow yaa may gunge su may yow yaa ni man maa ko yoroon di ko jàppee ko jullee ma jox la ko nga barkeeloo ko boole koog nag ak sijjaada gi nga xam ne nii ti man ko doon jullee jël ko di ko barkeelu ak li nga xam ne ni moom mooy ab dokk kon ñett yooyu la ko seexul xaddim dénkoon di ko wax ne nag bu may dem ci tukki bi yow yaa may gunge su may ñibbisi itam yow yaa may teeru waaye nag jëru ta suul yi nga bëgg a def ndax jëru ko seexul xaddim nag ci kër googu la nekkoon jàkkaarloo kër sëriñ bi te féete ko lii di soowu te tëli bi dox lii di seen diggante muy kër Ibra Binta Géy seexul xaddim fanaan ci néeg bi ko Ibra Bunta Gueye joxoon guddig la 19 septembre ak guddig la 20 septembre ba seddi la 21 septembre nag fa la seexul xaddim yendu bañ julli lii di tisbaar ba noppi ginnaaw buñ jullee tisbaar ba noppi nag la ko ndawul buur li jël si ñu fa yéene ko yóbbu nag ci réew mii di Gabon ci bëccëgug le 21 septembre barkeelu yooyu ko seexul xaddim joxoon mu nekkoon lii di dokk ba si ga ak lii di satalaga njabootug Ibra Bunta Gueye ci digg kër ga lañ ko defoon fob mbugalum nag muure ko ko képp koo xam ne nii daal yaa ngi jëm ca côté booba ñu lay wax nit wuurul lébu yi moom moo nekk foofu bul jege bul laal ndax ñoom ñu ci jublu woon mooy dañ doon bañ murit yi ñëw jël si lii di barkeelu yooyu seexul xaddiim joxoon seen maam ngir ñu sàmm barkeelu ya nag moo taxoon ñu fa boon béjjanoon nag def ca ngir jàppe ko ay tuur ku fay bëgg a jege rek ñu ne la tuurul lébu yi moo nekk foofu waaye ku ñuy wax Omar Ngaala Njaay ci gëstu bi doon gëstu ci ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ginnaaw bu mu ko toppee ànd ak kii di sëriñ Mustapha Lo mi nga xam ne nii doomu sëriñ ndaam abdourahman loola ak kii di soxna muslimatu mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddim dem nañ ba xam ne loola du ay tuuri lébu waaye sijaada ak lii di satala ak dokk bi seexul xaddim joxoon ibra binta géy moom la njaboot gi def foofu di ko sàmm dem nañ sax ba mujj gi njaboot gi dindi loolee nga xam ne moom mooy béjjunum nag ba wan leen ko ñoom ñu teg ca loxo kon jërëjëf jërëjëf Omar Ngalla Ndiaye ak sëriñ Moustapha Lo ki jëf jooju ñu wane foofu ci jaar jaaru seexul bëccëgug le 21 septembre ginnaaw buñ jullee tisbaar ba noppi ila Gabon ci ndigalul gouverneur général bi jiite wàllu AOF te nekkoon ci réew mi di Congo Brazzaville ci bëccëgug le 21 septembre googu sax la seexul xaddim julli ci lii di biir géej gi der bam jullee woon ci biir géej gi miñ ci loxoy sëriñ ndaam Abdourahman Lo wala ci njabootug sëriñ ndaam Abdourahman Lo kon ñu mujj ko wàccee lii di Gabon ginnaaw bu bato bi nag jaaree fi mu jaar ba eg ci réew moomu Libreville ginnaaw bu mu egsee Gabon ba gouverneur bi yëg ne ki ñu jële woon Sénégal di Serigne Touba Seexul Xaddim egsi na léegi nag ci ab traitoire am yóbbu woon nañ ko ci camp militaire bi nekk foofu ci Libreville di capitalu Gabon tëj ko fa ci prison ba fa nekkoon bi Seexul Xaddim yeewoo doon na kocc kocce lii di jàkka wala bërëb bu muy jullee militaire yi bi ñu xëyee tasaare nañ lépp loo xam ne ni Seexul Xaddim defoon na ko fa ba pare nag di ko wax ne bu mu ko fi defati ndax ñoom lii bugguñu ko Seexul Xaddim nag nangu woon na yi waxoon delluwaatoon tuuti dem nag fi léegi lii di grande mosquée centrale bu Gabon nekk dëkk boobu di Libreville taxawal fa nag lii di jàkkaam muy wëralewaat fa lii di ay xeeram lool sax tax na jumaa ji gën a rëy ci Libreville foofa mu ko defee woon fa la nekk di mosquée centrale bu Libreville Seexul Xaddim def na fa ay fan ginnaaw nag la kilifay Gabon di sàkku ci bépp citoyen boo xam ne ni yaa ngi foofu ci Gabon bu subaa ci talaata ji ci quartier bu ñuy wax Montagne Sainte nekk ci biir Libreville képp indi woon tudd du Mbàkke mën ngaa ñëw seetaan si jëf ji nga xam ne nii moom lañ koy def bu subaa ci talaata ji noonee ko autorité gabon yi waxe woon citoyen gabon yi citoyen gabon yi itam kenn ku ne bawoon nga sa yitte ñëw seetaan si jëf jiñ nar a def ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ndax booba kat li autorité gabon taamu woon ci jëf ja mooy képp koo xam ne nii ñi àtte nañ la ba pare suñ la naree faagaagal dañuy wax ñépp ñu ñëw seetaan si moo tax itam ñu yëgle woon waa gabon képp koo xam ni bëgg ngaa seetaan si jëf jiñ nar a def baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bi nga ñëw seetaan si ko ci quartier bu tudd montagne sainte nekk ci Libreville te seetaan boobu ñu doon seetaan ci bëccëgu talaata googu ngir li autorité gabon yi fas yéenee def ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim am na sénégalais bu ñu doon wax Banda Touré ab entrepreneur la woon autorité gabonais yi ñoo ko yóbbu woon ci réew moomu di gabon di ko liggéeyloo nettali na ku ñuy wax Abdou Khadir Dramé ab sénégalais la mu di ko wax ne moom Banda Touré keroog talaata jooju fekkee na ko jëf jooju ñu doon jëf ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim mii Banda Touré nettali nag moo nettali sëriñ Moustapha Lo ibnu sëriñ Daam Abdourahman Lo sëriñ Moustapha Lo nee na Abdou Khadir Dramé moo ne ko di Banda Touré nekkoon ab entrepreneur nekkoon doomu Ndar itam te fekkee woon talaata jooju autorité Gabon yi doon sàkku ci bépp nit ku bëgg a seetaan jëf ji ñuy jëf ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim nga ñëw fekke ko nee na ci garabu mango lañ yee woon keroog ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim fukki officier ak ñaar ak benn commandant taxaw kenn ku ne ñu wax la diiral fenn ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul xaddim ngir ñu fas yéene koo faagaagal ci teewaayu ne képp koo xam ne nii bëggoon ngaa seetaan jëf jooju ci gabon keroog ñëwoon nga seetaan si ñëpp toog di seetaan ginnaaw bu commandant bi joxee ordre ngir ñu tiire ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim kenn ku ne bi nga dooree bal bi bal bi dafa mujj wëlbatiku faat la seexul xaddim tekkeeku ci garab gi taxaw na leen lii moom Banda Touré nekkoon doomu ndar nekkoon ab entrepreneur bu autorité gabon yi yóbbu woon ci gabon nee na fa la ko fekkee ci atum 1948 la génn lii di àdduna dëkk bu ñuy wax port santi nekk ci gabon sëriñ tubaa seexul xaddim mujj na koo tuubal wala mujj na jébbalu ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim soppi turwa tudde ko abdoulaye touré ma nga foofa ci gabon ñu denc moom nee na fekkee na bëccëgu keroog talaata jooju ca montagne sainte bis officier yi di tiire bal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim garab googee ñu yeewoon seexul xaddim di ko tiire lii di ay bali fetal am na ñu baree bari ci tuubaa gi yor nañ lenn ci lu ca bokk ginnaaw buñ ko jëfee jëf jooju ci dëkk boobu di montagne sainte nekk ci dëkk bii di Libreville ci Gabon muy boole kook fukki officier ak ñaar Seexul Xaddim mi ngi wax ne waa axlu badar di malaaka yi doon jàppale yi di ngën gi mbindeef ci xeexu badar boobu itam ñoom ñoo ñëwoon doon ko dimbali bëccëgu talaata googu ginnaaw montagne sainte ak jëfi fukk officier ak ñaar yooyu Seexul Xaddim itam gasaatoon nañ ak kàmbu taal ca ab taal bu mat sëkk ci diirëb ay fan taal boobu nag Seexul Xaddim itam ba mu xoon nañ ko ci kàmb googu nekkoon ci montagne sainte Seexul Xaddim wax na ne kii di sëriñ Abdou Xaadir Jeylaani fekk na ko fa génne mu di ko wax ne naa xaar rek ndimbalul suñ borom tabaraka wa la seexul xadiim itam wax ne ne kii di soxna jaaratullaahi moo ko fa fekk sëq ko génne ko ca kàmb ga na ko wéyal liggéeyal kii di suñu boroom ginnaaw ñaari jëf yooyu ci Libreville ci quartier bi di Montagne Sainte te seexul xadiim dara jotu ko tubaab yi nag jëlee nañ ko foofu ci capitalu Gabon di Libreville yóbbu ko nag ci dëkk bu ñuy wax Lambaréné juróomi ati yàlla la fa def ci dëkk boobu di Lambaréné Lambaréné nag xeet wa fa yeewoo moom moo tudd ñu ne xeet wa fay yeewoo ñoom ñoo ay tukk loor kon ñu bari galwaa la ñuy wax ci histoire seexul xaddiim waaye dëkk ba moo tudd Lambaréné xeet wa fa yeewoo ñoo tudd galwaa kon galwaa du ab dëkk waaye aw xeet la dëkk ba mooy Lambaréné Lambaréné ak dëkk bii di Libreville di capitalu Gabon ñaar téeméeri kilomètre la ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci xayma foofu mooy ñaareelu étape bu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim def ci Gabon ci genn màngo ci tefesug dëkk boobu di Lambaréné lañ ko wàccoon Seexul muy taw wala muy naaj muy guddi wala muy bëccëg te kenn amul na ku koy toggal wala ku koy fóotal lépp lu seexul xaddim di def moo koy defal boppam lii di autorité lambar na yi di gouverneur bi géré woon lii di lambar na moom itam daana def saa bu xëyee ñëw ci tefes gi xool si ba xam ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi fi waaw wala déet ndax kat ñoom ginnaaw jëf nañ jëf ju mel noon noonu ci Libreville te seexul xaddim jërë jotu ko nañ ko bàyyeeg nag lii ëpp ci tund woowu di naan see moo xam gaynde yi la segg yi la ak yeneen ak yeneen kon nag jort nañ ne comme nit ak nit mënulu ko dara maanaam buñ ko bàyyee foofu rab yi ñoom faagaagal ko lool itam moom moo taxoon itam ci àllub làmbarna bi ci tefes googu nga xam ne ni rab yu bari foofu la ñuy naan seen ndox ñu sànni woon fa seexul xaddiim ci juróomi at ron màngo googu foofu la nekk ba nim fa bàyyi koo foofu itam lu bare bare bare bare ci mettit seexul xaddiim daj na ko fa ci diirub juróomi at ndax du néeg du dara lu dul ron màngo gi ginnaaw bu fa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nekkee am na benn doomu gabon ñu doon wax ronago moom sax dëkk si woon naa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim foofu ci tefes gi ngir yéem gu ko sëriñ bi yéem am na benn nawet sëriñ tubaa seexul xaddim muy taw foofu ci ron màng googu mu nekk ginnaaw bu ronago mi yërëmee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba ñëwoon sàkku si ci moom mu ba foofu ci ron màngo gi ñëw ci waañam woowu fanaan fa ginnaaw bu asamaan setee ba lii di autorité lambar na yi yëg ne kii di moo doon dimbali ku baax ki sëriñ tubaa seexul seexul xaddiim ba fanaanal ko sax ci waañam biig bi muy taw moom mujjoon nañ ko àtte moom Ronago mi ba tëj ko fukki weer ak ñaar ci dëkk boobu di lambar na ndax lu tax muy dimbali ko baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ba tey ci lambar na googu kii di commandant de cercle bi nekkoon foofu ci lambar na te yoroon nag lii di projet sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ci diiru lu nekk foofu ci lambar na ci juróomi at yi am na bés fukki dërëm yooyu ñu doon jox seexul xaddiim par weer heure buñ ko ko masaa jox seexul xaddiim da koy sànni ñoom sax mujjoon nañ ko dajale ba mat atum yàlla ko dajale ko takk ko yit ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir jort ne lim nekk par fukki dërëm moo tax mu xeeb ko mën na am buñ ko dajalee ba mu mat atum yàlla di 600 francs seexul xaddim dana am lum ci mën a def keroog bi commandant de cercle boobu ñëwee di jox ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim 600 francs yi di ko wax ne dañ la ko doon dajaleel ba mu bari ndax kat gis nañ ne liñ la koy jox par benn benn dafa tuuti seexul xaddim foobaatoon na xaalis boobu xaañoon ko kii di commandant de cercle boobu commandant de cercle boobu mujjoon na porter plainte ci dëkk bu ñuy wax njole njole googu nag seexul xaddiim daana fa dem di wujj li di convocation bi te diggante njolee ak dëkk bii di làmbar ne juróom fukki kilomètre la waaye seexul xaddiim da ko daa dox ci diirub li muy wujj lii di convocation bi ginnaaw buñ mujjee àttee diggante commandant de cercle boobu ak kii di sëriñ Tuubaa seexul xaddiim commandant de cercle bi moom mujjul del si waat ci zone boobu di Lambaréné mujj gi nag képp koo xam ne nii bëgg nañ koo nommer foofu ci na ngir nga saytu mbirum sëriñ Tuubaa seexul xaddiim da ngay gàntal ku ñuy wax Duudu ma Mbay moo volontaire wax ne moom doomu sénégalais la te lii itam di wolof la dégg na kàddu gi sëriñ tubaa seexul xaddiim di wax moom bis buñ ko joxee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom dana ko régler kon nañ ko jële ci poste bii mu nekkoon di duwaañ ñu nommé ko commandant de cercle ci dëkk boobu du lambarne luñ soxla ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom dana ko jëflante te moom ndax xam na ko ndax ñoo bokk nationalité loolu itam autorité gabon yi mujj nañ nangu kàddu duuduma mbay googu muy jële ko ci poste boobu mu nekkoon di duwaañ nommé ko commandant de cercle ci ci dëkk bii di Lambaréné li gën a metti nag ci gabon ci dund ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci diirub lim def gabon kii di duuduma mbay moo ko ko teg ci côté bu ne ndax daana ko rooseloo sax lii di tollub jardin façon fitna bu nit xalaatitim duuduma mbay daana ko def ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir fas yéene koo faagaagal ba am bis nag duuduma mbay mii di rëbb àndoon nag kii di apalantoom ginnaaw bu ñu réeroo ci àll bi nag la ko tegoon lii di aw rab daatu koy fetal palanton ba daa di faatu autorité gabon yi nag ci loolu lañ mujj sukkandiku ba arrêté woon kii di mbay tëjoon ko ci prison bi ginnaaw buñ ko tëjee ba tëjji ko nag lañ ko dàq ci poste boobu mu nekkoon di chefu Lambaréné ci wàllu commandement Duudu Mambay ci dof la mujj egg na ci sax bu demee duus ko ci foofu lañ ko suul kon Duudu Mambay itam jaar na fii ku baax ki Sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim ci mujjëm kon ginnaaw commandant de cercle boobu Sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim xaañoon 600 francs yi ak Duudu Mambay moom itam mujj fii ku baax ki Sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim intendant de cercle dëkk bii di lambar na nga gàntu ba mujj gi sax la waa lambar na itam tàmbalee jox ku baax ki tubaa seexul xaddiim lii di nag cër fu ñu tudde seexul xaddiim ci lambar na ñëpp tàmbalee koo warmaal laataa muy jóge ci dëkk boobu di lambar ne ci lañ ko xamal ne la kat taalibeem bu njëkkoon a jaayanteeg moom di cheikh aadama géey génn lii di àdduna ci mbàkke kajoor ci bisu fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru koor ci atum 1314 ci gàddaay gi dëppoowu nag muy fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru février ci 1997 muy bi seexul xaddim demee Gabon ba mu am at ak ñeenti weer ak ay fan la Cheikh Adama Guèye mi njëkkoon a jaayante ku baax ki Sëriñ Tuubaa seexul xaddim génn lii di àdduna ci Mbàkke Kajoor ñu denc ko ci Mbàkke Kajoor seexul xaddim itam yëg na ne ci dëkk boobu di làmbar nag njëkk a moom foofu la génn lii di àdduna kon nag yoonu murit tàmbalee gën di manqué ay kàngam ndax soxna Aminata Lo dem na kii di Cheikh Adama Guèye dem na kon ci dëkk boobu di làmbar nag fi la seexul xaddim wéel am nekkin ci jafe-jafe yooyu mu nekk boole koo nag léegi amultul benn commandant de cercle bu nangu ñu affecté la ci dëkk boobu di làmbar na ndax kat seexul xaddim ku fa dem itam doo am ndam ci moom te ñoom itim bëgg nañ nag seeni CV nag bu ëllëgee itam nag ndam nekk ca te waa dëkk boobu di lambar na itam tàmbali nañoo jox loxo kii di sëriñ Tuubaa seexul xaddim ba tàmbali nag di ko ziyaare ak wormaal kon itam autorité gabonais itam jële seexul xaddim ci dëkk boobu di làmbar na rek moom mooy pexe ndax kat lu ko moy itam kon dëkk boobu di làmbar na liñ bëgg ci seexul xaddim duñ ko am ñu jële ko nag ci dëkk boobu di làmbar Lambaréné dëkk boobu di Lambaréné itam Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim def na fa juróomi at te du fenn fu muy fanaan lu dul ci ron mango gi coono bi gën a metti itam ci tukkeem ci Gabon itam ci dëkk boobu di Lambaréné la ko dale bu ñu ko jëlee nag ci dëkk bii di Lambaréné lañ ko yóbbu nag ci dëkk boobu di Mayombe Mayombe nag xeet wa fa yeewoo ñoo tudd Bavoli waaye dëkk ba maa yombe la tudd xeet wa fa yeewoo na ñoo tudd Bavoli muy askan wa fa yeewoo comme Lambaréné xeet wa fa yeewoo ñoo tudd Galwa moo tax ci histoire ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim dañ ciy dégg lu bare bare galwaa ak baavoli waaye ñoom ay xeet lañ yu nekk foofu ci dëkk bii di lambarna ak maayombe sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi jóge lambarne mi ngi egg nag ci dëkk bii di maayombe ci bisub le 7 mars 1900 ginnaaw nag bu mu eggee nag ci dëkk boobu di maayombe ñi ngi ko yóbbu woon nag ci camp militaire bi nekk foofu foofu sax lu bon bon la seexul xaddim nag ci diiru juróom-ñaari at yim def gabon lu bon bon am na foofu am néeg ci dëkk boobu di maayombe ndax néeg mburu ngulu daa di tëdd ñu wàccee kaaf gi daa di ko ciy dugal daa di tëj bu asamaan settee ñu ubbi ko foofu sax la nekk ci atum 1900 ci la 7 mars ba 1902 ci dëkk boobu itam la bàyyi koo waatee ñibbisi waat ci réew mi di Sénégal di Mayombe ci diirum nag lu mu def Gabon moo xam Libreville moo xam Montagne Sainte Mayombe ba ci dëkk bii di Lambaréné bépp ñaawteef bu ñuy def ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim autorité gabonais yi dañuy sàkku nag ca population Gabon bi ñu ñëw seetaan si jëf jiñ nar a def ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim moo tax Seexul Xaddim diirub lu mu nekk Gabon lañ koy def amul kumpa nit ñi dañ leen di bàyyi ñu ñëw boobu di Mayombe lii di gouverneur bu Gabon sàkk woon na ci évêque bi nekk ci dëkk bi di Luango Pointe-Noire te nekk ci dëkk bii di Congo évêque bii nag moo njëkk dugal diine chrétien yi ci Afrique central te nekkoon nag ci dëkk bi di Luango te léegi ñu tudde ko Pointe-Noire mu nekk ci dëkk bii di Congo évêque boobu gouverneur bi nekk ci Gabon sàkk woon na ci moom mu ñëw Gabon xoolal leen ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim comme moom ci diine lay yëngutu mën naa am ci wàllu diine mu xam ci dara ginnaaw bu évêque boobu ñëwee Libreville ba gisee gouverneur bu Gabon gabon jëlee nañ ko Libreville nag indi ko Mayombe ngir mu xoole leen ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu évêque bi ñëwee ci Mayombe nag dajale woon nañ askanu Mayombe ngir di leen wax ne buñ bëggee seetaan diggante évêque bi ak kii di sëriñ tubaa seexul xaddiim mën nañoo ñëw seetaan si bu trois heures jotee ci bis boobu ca weer wa nag diggante juin la woon ak juillet ci atum 1900 ginnaaw bu évêque bi ñëwee ci dëkk boobu di Mayombe gisee kii di commandant de cercle bu Mayombe ñu convoqué nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ngir mu wuy si kii di évêque bi keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddim ñëwee ginnaaw bu ko évêque bi joxee loxo sëriñ tubaa seexul xaddim jox na loxo kii di évêque bi waaye bi ko commandant de cercle bu maayomba joxee loxo sëriñ tubaa seexul xaddim dafa fél loxob commandant bi interprète bi ñu woy woon keroog ngir mu nekk ci diggante sëriñ tubaa seexul xaddim ak kii di évêque bi moo tuddoon sergent Bakary ci teewaayu nag askanu maayombe ndax kat lépp lu ñuy def ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim dañuy seetaan si ginnaaw bu ñu joxantee loxo ba pare kii di sëriñ tubaa seexul xaddim laaj na Bakary ndax sëriñ tubaa seexul xaddim dawul wax wax sergent moom baakari la ko daa wooye ginnaaw bi nag sëriñ tubaa seexul xaddim nee na ko baakari lan la ma ñii di doye sergent baakari bi nag laaj na évêque bi lan lay doye ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ndax loolu la sëriñ bi di sàkku évêque bi nag xamal na kii di sergent baakari di ko wax ne daal ñun dañoo soxla woon kii di ahmadou bamba ngir waxtaan ak moom ginnaaw bi nag askan wa a nekkoon doon seetaan di askanu maa yombee dañ leen a dàq sëriñ tubaa seexul xaddim ak évêque bi ak sergent ak commandant bi ñoom rek ñoo fekke bi nag sëriñ bàyyi ko na foofu ñu ko convoqué woon mu delluwaat nag ca kaafam ndax kat ci maa yombe lu bon bon am na fa néeg waaye ak kaaf la bis bu fay dugg day burunglu su paree ñu wàcce kaaf gi bu bët setee ñu ubbi ko ca fan yooye nag ginnaaw bu évêque bu Lovago te léegi ñu tuddee ko Pointe Noire tam nekk ci réew mi di Congo la dellu nag foofu ci kongo def nag benn rapport yónnee ko gouverneur bu Gabon di ko wax ne kooku ma jàkkaarloo woon di di Ahmadou Bamba da ngeen di sonn rek waaye lu ngeen jéem ci moom du ngeen ko man xanaa kay benn pexe dong mooy ngeen delloo ko ci réew ma ngeen ko jële woon muy Sénégal waaye lu dul lool moom da di sonn ci moom waaye mënu lu leen ko dara am na itam beneen solution nag bu amaat waaye booba itam yaakaar naa du yomb xanaa ngeen jéem ko mooy ngeen jéem koo mooy loo suñu boroom su ngeen fexee ba mooy suñu boroom de lu ngeen soxla ci moom da ngeen ko mën a am boobu nag fexe xam naa ne du yomb loola nag bi ko évêque bi waxee lii di gouverneur bu Gabon fexe woon nañ nag ba benn soxna ngir bëgg mu jaxasoo ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di Mayombe dëkk boobu di Mayombe Ndombe bàyyi woon fa ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim dem préparé nag seenub jigéen ngir mu fas yéene jaxasoo ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ginnaaw bu ndaw sa ñëwee ca néeg ba fekk fa ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ngir bëgg koo laal wet gune nag sëriñ Touba Seexul Xaddiim daw na ko ci biir néeg bi waaye ndaw si rek saa su rek ngir fas yéene laal ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xaddiim ndax mission boobu kat lañ ko dénk ngir liñ bëgg ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ñu man koo am bi sëriñ Touba Seexul Xaddiim ndaw si nag mujj xalima gém yoroon sëpp ko ci daaji wiccax ko ndaw sa ndaw sa nag mujj na nekk lii di am mbottu sëriñ tubaa seexul xaddim këppoon na ko fa ci benn bool bu fa nekkoon ci biir neeg bi ginnaaw bu autorité maa yomb yi toogee ab diir nag jort nañ ne mission bi biñ dénkoon soxna soosu daal matal na ko ginnaaw bu ñëwee uppi néeg bi nag fekkuñu fa soxna si sëriñ tubaa seexul xaddim dong nag lañ fekk ca néeg ba laaj nañ ko ana ndaw si fi duggoon sëriñ tubaa seexul xaddim gàntu woon na di leen wax ne moom gisul kenn ku fi dugg waaye ginnaaw bi nag sonal nañ ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bool bee da ngeen ko fa fekk ginnaaw buñ ubbee bool ba nag fekk nañ fa lii di am mbottu ginnaaw bi nag lañ ko wax ne ñun duguluñ ci woon kii sëriñ tubaa seexul xaddim fa na xalima ga def ca daaga wiccaxaat ko ndaw si ndaw si jógaat taxaw nekkaat ka mu nekkoon ginnaaw nag bu ko autorité maa yomba yi laajee moom ma ngi leen di xamal bi mu duggee ci néeg bi la mujjee xam fu mu nekkoon liitam seexul xaddim jaar na fekk autorité maa yombe yi ci xalaat bu leen évêque bu Louvago joxoon te léegi ñu gën koo xam ci Pointe-Noire te ci jàmbaar ji danañ ko am te mujjul sotti ginnaaw bi nag lañ ko jële ci dëkk boobu di Mayombe ngir fas yéene ko nag sànki sànkam gu mujj ci dëkk bu ñuy wax kiilu ab île la île bii di kiilu nag mi ngi ci diggante dëkk bii ñuy wax Kabinda Kabinda léegi mi ngi ci Angola ak dëkk bii di Mayombe nekk ci Gabon ci seen diggante nag am na île bu fa nekk bu ñuy wax kiilu kiilu sax capitalu Angola la gën a jege ci ñu miin bu baax a baax a baax zone boobu foofu nag lañ mujjee yóbbu ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim yéene koo sànni ji kero bi muy dem kiilu nag mu kii di sàmba lawbe penda mi nekkoon jaraafu jolof lañ fa boole yóbbu xam ngeen ne sàmba lawbe penda histoire bi yóbbu ku baax ki sëriñ tubaa ci géej gi maam abduloo bi mu bindee lettre bi ba noppi kii di sàmba lawbe penda la jëloon lii di ab tampon tampon ko ci lettre boobee mu bindoon gouverneur sàmba lawbe penda histoire boobu ginnaaw bu ñu àttee sëriñ tubaa seexul xadim ci la 5 septembre mu mujjoon nañ ko setal ci histoire boobu jël ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim yóbbu ko waaye ginnaaw bi lu tolloo ñeenti weer ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddiim demee ci géej gi la sàmba lawbe penda nag defaat beneen erreur boo xam ne nii tubaab bi mënuñu koo baal muy wàllu lempa yooyu nekkoon ci jolof dafa am lu ci réer kenn xamul nag sàmba be la wala dafa réer rek loola itam ci la tubaab bi sukkandiku woon nag ba toppe woon sàmba lawbe penda haute trahison mooy koo xam ne nii dafa wor lii di askanam loola nag mujjoon nañ ko arrêté di ko wax ne daal xaalis boobee nga xam ne nii moom ay lempalo te moom lañ ko waroon a jox te ñëw ci keesu buur te buur gisul xaalis ba gisul lempo xaalisu buur lekkuwul lekk luwul képp ku ko lekk moom foo jaar gëq ko ndax xaalisu buur noonu la tëddee ginnaaw nag bu sàmbalaw bépenda amee erreur boobu ak lii di gouverneur bu ndar géej mujjoon nañ ko atte nag ci conseil privé bi atte woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ñu koy toppe au trahison boole koog nag xaalis boobu nga xam ne nii gisuñu ko moom daal fu mu jaar fay ko xam ngeen li nga xam ne nii moom mooy kilifay politique ñoom seenu kaso du metti lool lool wute naag ci réew mii di Gabon waaye nag ñu ngi ko tëj woon ci kaso bi ñu tuddee ñole wala ñu ngi ko yóbbu woon ci dëkk boobu di ñole nekk ci réew moomu di Gabon biñ demee itam denc ñu ko ci kaso bi ci commandant de cercle yi nekk foofu wala yenn ci autorité gabono yi nekk foofu lañ ko bàyyi woon Samba Laobé pend di liggéey saa bu weer dee nag lañ ko waroon a fay ci salaire am loola la ñuy yóbbu ci keesu buur ba li nga xam ne nii moom la ko buur di toppee mu matt kon Samba Laobé Penda biñ ko arrêté noonu lañ ko téye woon ba bi ñuy yóbbu Serigne Touba Seexul Xaddim ci dëkk boobu di kiilu dañ koy yóbbaale ngir fas yéene leen a boole buñ demee gaynde yi wala rab ya fa nekk faagaagal leen ñoom ñaar nag seeni mbir jeex ci kaw suufa ginnaaw buñ yóbboo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak kii di sàmba lawbe penda ci île boobu di kiilu ndaw la leen yóbbu woon muy ki leen doon sànni ji ci ndigalul commandant de cercle bu maayombe ndaw la laata muy delsiwaat ci dëkk bii di maayombe sëriñ tubaa seexul xaddim ak kii di sàmba lawbe penda delsiwaat nañ ci dëkk boobu di maayombe xale ya nekkoon foofu ci maayombe wala nit ñi nekkoon foofu ci maayombe ndax kat waxoon naa leen na sëriñ tubaa seexul xaddim ci diirub lu mu nekk gabon lépp lu autorité gabonais yi di def ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim dañuy woo askan wi ñëw seetaan moo tax bisub keroog biñ koy sànn ji ci île boobu di kiilu waxoon nañ askanu Maayombe ñu ñëw seetaan si yi di Sàmba ba nit ñi yëgee na ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci garab gam daa nekk foofu ci maayombe xale ya fa nekkoon wala nit ña demaan nañ ci commandant de cercle bi di ko wax ne kañ sànni ji woon démbu dee ma waat foofee ca garab ga gis nañ ko fa commandant bi gëmul woon loolu waaye ginnaaw bu mu ñëwee nag yëg na ne daal ku baax ki sëriñ tubaa ma nga fa waaja sànni ji woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak kii di sàmbalaw bi pend nag ba nëg ni ñëwagul ginnaaw bu mu ñëwee nag ba commandant de cercle bi laaj ko ana waaja nga sànni ji woon mu di ko wax ne kay kooku kay xam naa ne laataa may dëpp bay am cinq minutes kay ndeyeeg rab ya fa nekk kay moom faagaagal nañ da wax na ko ne Ahmadou Mbàkke de ma nga noonee ca garab googe nga ko jële woon demal xool ko ginnaaw ba mu ñëwee nag ba gis ko moom dafa xaru ndax kat jort na ne lu mel noonu moom munta nekk ci loolu nag la tubaab bi sukkandiku ba mujj jëlee sëriñ tubaa seexul xaddim ci réew moomu di Gabon indiwaat ko ci Sénégal Samba Laobé Penda itam mujj na ñibbisiwaat Sénégal ginnaaw ba lim war a tëdd kaso matee kon moom itam Sénégal la mujjaat ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddim demee ci Gabon ci capitalu Gabon di Libreville fukki officier ak ñaar ngir ñu faagaagal ko te mujjul sotti ak kàmb googu ñu taaloon ab pour tàbbal ko ca te itam dara mujj ko dal ñu jëlee ko foofu ci Libreville yóbbu ko ci dëkk bi di Mayombe tam def fa juróomi at yàlla ci ron garab googe nga xam ne du néeg du lenn loo xam ne nii moom moo koy aar foofa lu dul ay rab yi gën a soxar ci àdduna bi ngir ñu faagaagal ko itam te mujjul fenn ci dëkk boobu di Lambaréné na ginnaaw bu mu fa nekkee ci atum 1898 lañ fa indi nag doomu Guinée bii di Samori Touré Samori Touré nag garab jinne mook doomam ak lii di soxnaam ak mbooloo mu baree baree bari lañ boole arrêté ndoo mook sëriñ tubaa seexul xaddiim nag fekkante nañ ci dëkk boobu di lambarne waaye moom booba sëriñ tubaa seexul xaddiim mi ngi ci àllub lambarne bi moom mu nekk nag ci dëkk boobu di njole ndax prison bi kat ci dëkk boobu di njole la nekkoon fa la Samori Touré tëdd sëriñ tubaa seexul xaddiim nekk lambarne ba niñ jëlee sëriñ tubaa seexul xaddiim ci dëkk boobu di lambarne yóbbu ko nag ci dëkk bii di maayombe ba ci boori 1900 jàpp 1901 ci la Samori Touré nag tëdd lii di boobu di njole ci prison boobu mu nekkoon mu yónni doom ji nag di Frank Moori di ko wax ne ginnaaw bu mu déggee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci dëkk boobu di Lambaréné di ko wax ne dafa bëggoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim moom bis bu génnee àdduna ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim jullee ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim keroog mi ngi tontu kii di doomu saa Moori Touré bi di Frank Moori di ko wax ne sa waajur wa de prison ba mu tëdd ca njole may tim prison bu mel noonu laa tëdd fii ci Mayombe la ko jàpp ca njole ba munta ñëw ci man moo ma jàpp ci Mayombe ba mënu maa dem ci njole ñun ñaar ñépp ay prisonnier lañ seexul xaddim mujj na jox suuf kii di Frank Mouri di ko wax ne bis bu sa waajur wa génnee lii di àdduna nañ ko ko dencaale te lii di ak njébbalam nag nangul naa ko ko kon seexul xaddim saa Mouri Touré mujj na jébbalu ci moom ci yónneen bu mu defoon ci doom ji di Frank Mouri boobu nag seexul xaddim mi ngi ci dëkk bii di Mayombe kii di saa Mouri Touré mi ngi ci kaso bi nekk ci njole kon foofu nag la génnee àdduna ci kaso boobu mu nekkoon ci feebar bu moom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim xam ngeen na sëriñ Mouhamadou Lo Dagana keroog bi muy ñëw Gabon ngir di seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim booba nekkagul sax lii di ab murita moom kay dafa yëg ne am na ab sénégalais bu jóge ci réew mi di sénégal di nitub diine goo xam ne nii tubaab bi daal jële woon nañ ko ci sénégal yóbbu ko ci réew mi di Gabon moom daal fu mu jaar nemmee ji sénégalais boobu ci zaayir moom lool moo ko yóbbu réew moomu di Gabon ngir fekki ku baax sëriñ tubaa seexul xaddim yoon wi nag dox na ci atum yàlla ngir mën a fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim moom sëriñ Muhammadu Lo Dagana yoon wi nag def na ci atum yàlla ndax bis bi mu jógee woon ci dëkk boobu di kokki guy nga xam ne ni moom mooy cosaanam ba ni mu egg ci dëkk boobu di maa yombe nekk ci Gabon atum yàlla yoon wi nag lu ne daj na ko ci ndax liggéeyaanu na ci yenu na ci ay dàmba ba lii di militaire sax solo na ko ci laataa muy fekki ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xaddim te bi muy dem ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim jaayantee gut ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim dégg gum déggub sénégalais bu tubaab bi teg loxo te tooñ ko moo ko yóbbu woon ci gabon ginnaaw bu mu eggee ci gabon defee ay pexeem ba xam ne ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim mi ngi ci dëkk bu ñuy wax Mayombe te Mayombe nag ma ngi ca frontière u gabon ba digganteem ak Angola sëñ Mouhamadou Lo Dagana nag na ba egg ci dëkk boobu di Mayombe ziyaare ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim ginnaaw bu ko Seexul Xadiim laajee ana waa Sénégal ñu nuyoonte sëriñ Mouhamadou Lo Dagana nag mujj na jaayante ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim foofu ci gabon ba liggéeyal ko fa ndax kat foofu nga xam ne ni fi la Seexul Xadiim nekkoon moom doon na ko bay ba defaraat ko ba mujj sell lool sëriñ tubaa seexul xaddim nee na ko muhammadu loo dagana yow da jaaxal nga ma ndax yow kat defaluma la dara te yow coono bi nga daj ba ñëw fekk si ma fii am na ñoo xam ne nii defal naa leen lu ëpp fopp li ma la defal te ñoom gisuma leen fii waaye nag benn mission rek laa la sant mooy delluwaatal Sénégal te boo demee nga laajte ku ñuy wax sii di Anta sama rakk la nga ne ko mu fekk ma ci dëkk bii di Mayombe sëriñ Muhammadu Lo Dagana itam jógewaat na ci dëkk boobu di Mayombe ñëwaat Sénégal ñëwaat nag ci dëkk bii di Daaru maam cheikh anta mbàkke sa mag ja xaadim rasuul fekk naa ko ci dëkk bu ñuy wax maa yombe nee daal noo mën a def nga fekk si ko ci dëkk boobu ci fin wu 1900 la maam cheikh anta mbàkke ñëw nag ci dëkk boobu di maa yombe ci ndigalul magam xaadim rasuul ci woolu gu ko sëriñ mouhamadou loo dagana woosi sëriñ mouhamadou loo dagana àndaan nag maam cheikh anta mbàkke ci yoon wi demaat gabon fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ndax dëkk bi mu nekk ci gabon kon moom moo koy wani maam cheikh anta mbàkke maam cheikh anta mbàkke def dagana ba keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddim di ñibbisi ci sénégal ci le 20 septembre ci atu 1902 mook sëriñ Mouhamadou Lo dagana ñoo ànd ca yoon wax ndax gaali sëriñ biñ doon def ca gaal ba sëriñ Mouhamadou Lo dagana mii moo ko fat ca gaal ga moo boot sëriñ bi itam dugal ko ci gaal gi ne ko illa sénégal kon seexul xaddim mi ngi jóge ci réew moomu di gabon ci septembre ci atum 1902 ci benn batom napp boo xam ne nii da doon napp war a dem nag ci côté Brésil capitaine bato bi mi ngi doon xamal autorité gabonais yi di leen wax ne dana jaar daal ci réew mu ñuy wax Sénégal waaye nag moom deful directement Sénégal day napp daal heure bu nappam eggee wala lim soxla ci wàllu napp bu ko amee ba pare daal dana ndi jaar Sénégal ndax fi mu jëm kët ci ginnaaw Sénégal la autorité gabonais yi itam wéeloon nañ loolu di ko wax ne daal heure bu eggee Sénégal na fa wàcce ku baax ki Serigne Seexul Xaddim kon jugee Gabon ci dëkk boobu di Mayombe ci le 20 septembre ba novembre ñu xayma ko ci weer ak ñaar fukki fan la seexul xaddiim def ci ndox mi doog a wàccaat na ci waaxu ndakaaru yi bi muy jógee Gabon itim liberté provisoire lañ ko mayoon muy bàyyug nigg nduku ndax heure buñ ko soxlaa woo ko bàyyu Seex Saaliwu yàlla nañu ko yàlla fayal amin